président Macky Sall sa bu soxla parce que fi bu yagul ci février 2019 la fi ñëw def fi meeting nek candidat ci la jatt rew mi Mbour jël engagement ne ko dañ la falat def nako ñu ngi gërëm population Mbour yëpp di leen sant ci engagement boobu tay nak li xew moy pët-pëti rek wax ju bari waye kenn du attaquer bilan président Macky Sall déedéet waaye ay affaire droit de l'homme ay yu kenn xamul la ñuy wax Macky Sall du leen tontu du leen fàlle parce que amuñu seen jot xam nga ñun suñu jot fan la nekk cinq trois cinq cinq trois cinq loolu mooy ci dël gaa yi boo ne trois cinq trois cinq rek ñu tiit wax ñu lu leer ci troisième mandat wax ñu lu leer ci nangam nangam dama ne saga ya tam ci xeex la loolu gay na lu jot yombu loolu la mouvement Omar sibi wax lu jot yombu te nag ragaluñu fu ñu jëm ragaluñu fu ñu jëm waye nak dañu nekk ci temps wu liggéey dañu nekk ci temps wu 5 3 5 feñal liggéeyu président Macky Sall feñal programme bu bëss bi mu andi pour xalé yi pour dund gi gëna a pour liguey gëna a ci xalé yi lolu moy suñu wax motax ma ngi initiative bi comprendre la vision du président on ne peut rien faire au profit des populations si on le fait comme Robinson Crusoe en isolation en isolement ce qu'on fait on doit le faire dans le cadre de l'alliance ce qu'on fait, on doit le faire dans le cadre de ce grand rassemblement de la majorité présidentielle. Vous avez compris la vision du président. C'est pourquoi vous êtes des engagés fidèles au président de la loyaux. Vous nous donnez l'opportunité aujourd'hui de discuter de tout ça avec nos frères du gouvernement et particulièrement en présence de toutes ces autorités. Je vous comme président léegi léeg ci biir waxtaanam maa ngi koy dégg mu naan bàyyi leen français bu bari bi ngeen di wax tey wax wolof parce que loolu la gaa yi gën a dégg te li mu yor dañ koy jaay comme dañ koy jaay nag nañ ko wax ñu ko mën a comprendre ci langage bu ñu ko mën a comprendre ba bu ñu fi jógee suba millier milliers de jeunes fu ñu toog ci grand place ci gare routière ci marché yi ci école yi ci lycée yi ci université yi ñu mën a wax président Macky Sall li Sénégal loolu nag kenn bi ko tere kenn mënuñu ko tere parce que plan Sénégal bi mu andi plan Sénégal 2035 Sénégal émergent à l'horizon 2035 on sera avec ce programme on sera aussi avec ce président Macky Sall jusqu'en 2035 parce que ku fi ñëw ndaw Macky Sall lay nekk wala ku fi Macky Sall di indi ba 2035 bu soobee yàlla kon nag l'histoire comme li ko suma frère Aliou se poursuivre jusqu'en 2035 et cette histoire soit naa nettali le secteur yëpp bu ñu mbay mi ay bon impayé lañ fi doon fekk pas ñu gi xamul lu mu la éducation normale. électricité lañ ci jot bañu dañuy yok courant dañ koy wañi lañ ci mais ñi nga xamné dañu nek ci dëkkee côté Thiadiaye Ndiaganiao ñooñu dañu leen siiw pour jot ci électricité ñooñu moo tax président Macky Sall dinaa fexe sama kéem kattan ba ñooñu mën a jot ci électricité mën a am courant comme ñëpp parce que Sénégal lañu bokk. kon les jeunes maa leen di féliciter di leen encourager di leen jaajëfal di leen réitérer la disponibilité de tous les responsables tous les responsables. tous les responsables, c'est tous les responsables de l'Alliance pour la République, mais aussi c'est tous les responsables de, ce grand, de cette grande alliance Bernard Bokoyakar. Ce panel, avec comme thème principal l'appropriation des cinq initiatives, des trois programmes et des cinq accès universels par les populations locales, mais en exergue. L'engagement de la jeunesse à s'approprier et à divulguer la vision du président Macky Sall afin d'amener les populations locales à, d'une part, s'intéresser davantage au plan Sénégal émergent et d'autre part, à comprendre du moins les nouvelles politiques constituant ce cadre de référence. Ce panel constitue également le début d'une série d'animations de la coalition à la base. C'est pourquoi nous magnifions notre engagement avec les différentes parties et mouvements de la coalition Beno Bokuyakar et de la grande majorité que je remercie vivement. Chers camarades, vous avez montré que la jeunesse est la force du Sénégal. Quand la jeunesse s'engage, c'est le Sénégal qui gagne. Mesdames et messieurs, œuvrons ensemble à obtenir les résultats probants pour les cinq initiatives, les trois programmes et les cinq accès universels sur l'ensemble des territoires nationaux mettons, mettons-nous au bon côté de l'histoire qui demeure son Excellence le Président Macky Sall. Accompagnons le Président de la République avec fidélité et loyauté pour les lendemains meilleurs.